kenn dootu ko présenté ci làmb yow kañ ngay wér kañ ngay wér onde bu wér. waaw mënumaa ñëpp sama lim national comme d'habitude laay Kapo Chérif Diène Moussa Yandé Abdou Sembène Karbala suma xarit sama doomu ndey sama yaay nday Mari Géwél sama yaay Aminta Dramé sama yaay Mari ginnaaw raay UPD suma papa Gorgui Diop suma papa. waaw Ablaye Diop maire ginnaaw raay ñu ngi koy ñaanal yàlla. bëri nga ay papa de. baax rek. comme Mati am Dogo ah. <laughs> waaw la nga ni kan ngay wér Onde le Fou la kañ ngay wér. waaw mënu maa wér parce que juste que ni chaque jour damay gis loo xam ne nii lu ma naqari la damay gis lu ma naqari. yan moo naqari ba ngay fu. xam nga dof ni da ko war a faj mais nit ki buñ nangu faj dof bi dof bi day mel ni moom day continuer di dof ndax dof ràngatiku ndax dof feebar la comme sida yeneen jàngoro yi quoi mais juste ñu ngi li dal suñu président association muy mobile ñu koy ñu koy mettitlu parce que mënu maa comprendre yow état ak làmb ata état def lu dul yoon sippi ñu loolu état ñu sippi ko mbër mi nga xam ni moom moo waroon a bëre jour bo mbër bi dafa am lu mu def wala. non mbër bi deful dara jour bi ne moom la war a bëre ñëw na fii ba ngemb bu jugee seen kër ñëw fii war a bëre si ñu ni préfet bi moo ni bu kenn bu kenn bëre joxewul benn jemi te mbër mi ngemm na ba pare ñu toog benn un an deux ans boo xam ne dédommagé wu ñu mbër yi jox nañ ñëpp xaalis rappeurs yi jox nañ leen xaalis misi waykat yi jox nañ leen plus de trois milliards ñu jox ah, chauffeur de taxi yi jox nañ ñëpp askanu làmb dong lañ joxul mbër mbëri toog bi muñ loolu. mais lan mooy problème mobile 2 ak léegi loolu loolu problème bi laa la bëgg a expliquer léegi mobile bi ñuy jàppaat date bi fekk mu war dem voyage ñu woo ménager am ni ko da ngay signé waat benn contrat kenn du ko signé ñaari yoon mais dem na tukki. mais contrat dañ ko renouveler. waa mais kenn du ko amee dafa am benn empêchement bu am. waa mais bu fekkee ni moom ménager bi nanguwul signé rek problème am na. kon contrat bi kiwul ba tey valable lul. dèjà comprendre nga mu dem ñu bëri ci ginnaawam mais pour man la meilleure façon du aj ko quoi parce que lamb dafa rafle ay mbër. ndaanaan yi fi nekkoon yëpp voyage yi nañ. ndaanaan yi nekkoon ci làmb daan dundal làmb ñëpp voyagé nañ lan moo tax ñu ñu voyagé kenn jéemu ko recherché kenn jéemu ko xam làmb mi ngi dee làmb amul xaalis parce que alxuraanu karim ñun ñëpp bu ñu la waxee li ñuy fayeeku da nga naan ci kaw ñooy am xaalis non ñooñu dañuy raxas sax fi mu toll nii dañuy raxas ñooñu fi mu toll nii li fi def la ñuy waabaale dem parce que boo seetaanee signature Balla Gaye ak Bombardier bërki démb nga xam ne làmb amatul ampleur parce que Balla Gaye Bombardier ngi kii na sinap Balla di fecc nga gis Gris Bordeaux ci wet gi. avance bu neex la. non non déglu ma rek xamal loolu amatul ampleur. parce que cité ngay wax ñooñu ñoo taxoon nit ñi di loolu ba làmb di am coow dëgg ak di am xaalis dëgg kenn nanguwul woon loolu mbëri nanguwuñu woon sax pour di xaritoo mais CNG bi ngir yàlla ak yonent bi nañu gëstu mbër yu ndaw yi si tëb ngor bërki démb dañ kaa dagg ba mu desee 2000 war a dem CNG jëli ji ko. 2000 francs Ada Fass bëre ba pare. ñu ne ay supporters am ñoo damm chaise yi dañu téye reliquat am mu ñëw ni daf koy defar si ñu ni ko xaara ba ñu woola mu ne ñu ko xaara ba ñu woola ci ginnaaw si bi double moteur ñëw bëre si ñu damm ay chaise am dagg ko cinq cent mille mu leen jox leen ma sama xaalis dama ci am bor ñu ni ko defaral chaise yi ba pare mu ñëw ni di ko defar si ñu ni ko toogal ba ñu woola ci ginnaaw gi Siteu ak Papa Sow bëre nañ fi sànni ñu chaise yi léegi kan moo war a defar stade bi stade bi ni ñu ko defaree nii bu fekkee ni baaxul ci ñun dañ kaa war a tëj bu saison bi jeexee ñu defaraat ko mais ñun làmb ji CNG yor ñun suñ bopp fi mu toll nii ñun mbër yu ndaw yi gisuñu ci suñu bopp ñun gisuñu ci suñu bopp metti na trop président CNG bi dafa war a xool li muy defaat. est-ce que yéen a ngi wut euh, demande d'audience ngeen waxtaan ak CNG ak jafe-jafe yi nga wax nii yëpp ngeen waxtaan ak. non mais boobu ba léegi ñu ngi yuuxu mais nawloo wuñ ñu gis nga làmb xam nga ñoo koy defar gis nga siège ñuy dem ak lépp bu ñu bëggee mu dakk xam na la ñuy def dañuy woo mbër yu ndaw yi ci seen wàllu bopp ni leen lan mooy problème ba seen moroom yi di def lii parce que lii de ñii def lii doo fi gis benn paa buy sànni ay chaise wala demi paa benn xaaf paa du def problème bi xam nañ ko ñuy toj chaise lan la lu leen neex non non parce que ay xale la lamb lamb affaire jeunesse la mais da ngay jël jeunesse bi ci seen wàllu bopp seen moroom yi nga leen di laaj lan mooy seen problème mu moroom yi yéen lan lañ bëgg lan moo tax ñuy def lii lan moo tax ñu defal leen nangam ak nangam parce que lamb dañ ko fekkoon ci ay bayal indi ko ci stade tey stade bii nii stade bu mucc ayib la yaakaar naa ne stade lamb yi ko amu si lu am stade lamb bu mel ni mais buñ dee damm saisir rek yaa problème mais problème bi nag fan la nekk mooy ci nit ñi nit ñi mooy ñan xale yi mais nañ ñuy déglu ñun boobu ba léegi ñu ngi yuuxu maire bi daa am lu mu waxoon mu ni xale yi muñ leen bu leen juróon yërëm leen. aar mbay yàlla na ko yàlla may gudd fan. waa daa mel ni nag ñoom li ñu jurul moo tax ñu ñuy teg li ñuy teg mais métti na ci ñun torop amuñu liggéey amuñu benn métier làmb la ñu am. làmb bu yaaxoo ñun Pape Maguette xaw ma fu ñu jëm métti na trop président mobile mi ñu aj amaan ko 2 millions nañ ko bàyyi làmb bu fekkee ni président CNG munu ko gérer nañ ko def fédération. kat mooy gere boobu. non nañ ko def fédération jóge na fi kii ñëw. mais nañ ko def fédération daa mel ni ki fi moo gën ki fi nekkoon. ah déet bu leen dugg ci waay naa mu xamee. ah xamoon nañ ko de. waa dañooy mais woon nañ ndeysaan moo fi gënoon. métti na torop métti na torop gisuñu ci suñu bopp. daa neex ci ñii naqari si ñii wala. non lambay commencé yàqu. lamb léegi day am ba pare kenn du xam kan moo doon bëree sax. Ah, loolu dëgg la. Balla Gaye Bombardier mi ngi ñëw kenn xam kenn déggoo coow li dimanche samedi déggoo sax coow li lamba ngi yàqu. te warul yàqu li waa ji wax la ni Sénégal ñaari ñaari affaire lañ créé muy ceebu jën ak làmb ceebu jën moom du mës a dee ndax boo demee kër Lebu yi fekk ko fa boo demee kër géwél xam ni ceeb Sénégal la ko moom waaye làmb boo ñëwee arène nationale xam ni dee na. ñu bëri dañ koy ragal a wax ah boo boo waxee ñu ne la làmb deewul mi ngi dund. waaw parce que ñoom ñu ngi ciy jëriñu mbër ci jëriñuwul dara mbër chaque jour mooy perte mbër mu ñu dagg ba mu dese 2000. loolu yoon de. fan lañ jëm. gerte caaf de jaralul sax de. metti na torop barki Seydina Mouhamed. waaw léegi dama bëgg nga wéer nag après ah. waa sëñ Fallou. waa ñu ngi béggee ñëpp nag ah sëñ Fallou béggee nañ Pape Maguette.